am na ñoo xam ni tamit ñoom danañ ëmb di am doom mais day dellu loolu am rek day dellu loolu la ñuy wooyee yara dal yàlla dogal tey nag ñu indi ay secret yu jëm ci wàllu am doom ak wàllu ëmb ak muslaayu xale ndax euh, askan wi ñoo koy sàkku ci ñun jigéen joo xam ni dafa munta am doom wala muy am doom ba yàgg mu taxaw gëj am doom na dem ci faatihatul kitaab saar wu miin la muy alhamdulillahi rabbil alamin am na aaya bu fa nekk ñu naan ihdina siraatal mustaqim boo ko bindee quatre-vingt-douze mooy limu muhammad mooy jàpp muhammad alayhi salaatu wassalaam su ko defee mu def ko saafara di ka naan suba ak ngoon suba ak ngoon suba ak ngoon ba pare moom soxna si def loolu mu xam saraxam nit ku nekk dafa war a xam saraxam bu ko xamul ñu seetal ko ko waa ñu xaaral ko ko dañuy xam saraxam xam sarax war a bu ko defee muy naan saafara soosu di génne saraxam bu yàlla dogalee ba mu defee loolu di jaxasoo ak boroom këram weer wa am ko defee mën na caa jël ëmb man secret bu bu ma sori la nag waaye boo gisee ma joxe ko euh, sëy lu yàgg ci amoo doom dafa metti soxna Aïssa dëgg la am na ci ñoo xam ne sax ndeysaan dañ leen di gaafal waaye lii ma wax ku ko def ak gàllankoor bu ci mënoon a am lii lii moo ko ëpp doole yàlla mën na la cee may doom am na solo waaw jigéen ju musta am doom nag nga xam ne musta am doom boo ko ku taxaw day def na yonent yàlla Zakaria defoon ndax yonent yàlla Zakaria ba mu demee ba yaakaar ni du am doom da koo ñaan suñu borom ndax am na ñoo xam ni doom mën na noo toog rek yàlla may leen ko mi am na ñoo xam ni faaw ñu ñaan ko yàlla doog leen ko may dinaa ci indi ay firnde yu leer. Mhm. waaw jigéen ju musta am doom dangay bind ci wetu ndeyjoor gi ka annaha li yaquuta xidmiir ma nga ci suuratu rahmaan ka annaha yaquuta moo ci topp waaye boo koy bind bind ka annaha yaquuta xidmiir bind ko ci wetu ndeyjoor gi. waaye soo ko bindee ci wattu ndeyjooram waxtu wu nga ko waxtu wi ko bind ba waxtu way dellusi jigéen ñi moom du ci sangu li nga bind faaw mu am mu doo ko sangu su ko defee moom day xam saraxam ñu xaaral ko wala ñu seetal ko waxal ko saraxam mu di ko génne bu ci jaxasoo boroom këram mën na caa jële ëmb ba tey iyaaka naxbudu wa iyaaka nastain moom soo ko bindee limu 92 mooy jàppaat limu Muhammad mhm. mu boole ko suufu max max ñi ci àll bi xam nañu ko def ko ci saafara si mu boroom këram ñu bokk di ko naan yàlla mën na leen defal ñu am doom ndax doom dañ koy ñaan yont yàlla Zakariya bu mu toogee amul doom dafa ñaan suñu borom doom dañu ko rabbi laa tasarnii fardan rabbi laa tasarnii fardan wantu xayru waarisin sunu boroom may ma doom ju may wéttali yàlla may ko doom ba pare ni ko ñaan gi nga ma ko ñaan nag moo tax mu may la ko waaye su ma ko ñaan doon du ma la ko may waaye ñoom danoo xam ñaanin bu fekkee yont yàlla ibrahim moom bu mu toogee amul doom dafa wax ni inni daxibun ila rabbi sayahdi rabbi habli mina saalihin sunu boroom may ma doom joo xam ni daf may donn yàlla may ko ismail mu doon benn ci moom mm-hmm. boo yégee ni tamit sa soxna dafa ëmb wala nga yëg ni kii sa doom la te dafa ëmb nañ ko bindal nañ ko nañu ko bindal faatixatul kitaab boo yëgee ni dafa ëmb rek soxna si nañ ko bindal faatixatul kitaab waaye aaya boo bind ci faatixa da bind wa in yàkkaadu lisina kafaroo ma nga ca nun wal xale mi aaya boo bind ci faatixa nga nga in yàkkaadu lisina kafaroo bu faatixa jeexee nga bind falaxi ba mu jeex teg ci naas yi ba mu jeex teg ci aayatul kursi yi ba mu jeex bu ko defee loolu ngay def saafara nga wut cin lu amul dara mm. nga jël inde teg ko ci kaw cin bi jël saafara si sotti ko ci inde bi mu jàll ca cin la soxna si di sangoo loolu suba ak ngoon ëmbam boobu mm. seytaane du ci am yoon ngelaw du ci am yoon cat cat du ci am yoon rab du ci am yoon du ko sonal yàlla na ko oyofal na ko sàmm sàmm li ci biiram du bari sax lu muy dem hôpital te sunu boroom na ko may omi sedd guy ci jàmm ëmb ba dara du ko yàq du avarti tamit kon na ko gaa yi jël maa ko def àddiyee jëm yàlla ndax jigéen ju ëmb man dama ko yërëm mhm. loolu la yàlla def ci man man damaa yërëm jigéen bu toll diggante ndax mag ñi danaan wax naan benn tànk ba ma nga barsàq benn mhm. tànk baa nga àdduna ndax jigéen wéerul lan wax mhm. wéerul bu fekkee da nga yëg ni sa soxna dafa ëmb laata muy mat trois mois nag laa wax nga bëgg mu am doom ju góor bu xasee ah. weesu bu trois mois sa trop waaye laataa muy mat trois mois nga yëg ni sa soxna daa toll diggante nga bindal ko surtout yuusufa loolu siiw na boroom xam-xam yaa ngi may dégg mhm. benn bi da koy def saafara di ko naan daf ko ci ndox mu neex di ko naan benn bi mu def ko téere takk ko ci naqam laataa muy mat trois mois sunu borom dana ko eggaleel ëmbam boobu ci jàmm ci lu amul benn jafe-jafe bu ko yàqal te dana am doom ju góor te doom ju rafet lay jur. doom bu jigéen doom bu jigéen dinaa ci ñëw. bu dee doomu ji doom bu jigéen surtout nisaa yi nga koy bindal. bu mhm. fekkee dangaa bëgg doom bu jigéen mu takk benn naan benn bu dee doom bu góor nga bëgg balaa mat trois mois da koy da koy bindal surtout Yuusufa muy naan benn bi saafara benn bi mu takk ko ci naqam suñu borom dana ko sàmm ba mu am doom ci jàmm te doom ju rafet lay doon te doomu kilifa lay jur doom ja in foo dana doon doomu kilifa. macha allah bu fekkee fii laay terminer fekkee kii am doom muy yaradal nga xam ne moom dana fexe ba am doom ak amul problème mu ëmb mi ngi ëmb mi ngi am doom mais am na âge boo xam ne ba fa ay doom ba la ñu faa egg rek delluwaat. day mhm. amuñu mu dal ndeysaan. Mhm. ak ëmb ak imi mu méttee. képp ku mu dal nañ ko bindal vingt et un la mooy bisimilahi rahmaani rahim mu takk ko suñu borom mën na koo defal lu mu juróoti mu toog. Mhm. kon foofu la ñuy wàccee sunu kàddu. am na solo di wax nit ñi ni am na xeeti secret yoo xam ni day secret day xam-xam yu mag ma ne su koo wax ci télé yenn yi doon ay xaatim euh, du neex a comprendre yi nga xam ne yu ndaw la di nga ko mën a wax nit ki dégg ko def ko. yooyu lañ leen di jox waaye amul lu nu yéenewul jullit yi. am na solo soxna Aïssa. jërëjëf képp koo xam nit amoo ci dese nga cee am la leer da ñuy woo ci 78 530 69 81 wala nga woo ñu ci 883 76 883 18 76. jërëjëf waaw kay yàlla ñu yàlla may dégg ak topp. amin waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci secret yi am na solo joxante di daje ba mercredi prochain incha allah Asi ma bàyyi la nga tàggatoo njëkkati jotaay incha allah jërëjëf ayca Lina merci. merci à demain. à demain incha allah Pape. Euh, peut-être bu à lundi. parce que ah. demain je voyager euh, pour des de reportages donc. Euh, très bon voyage. Oh, merci allez merci Pape merci à toute l'équipe de la régie ak ñi nekk ci suuf Khady ak ki nga xamante ni moo di Babacar merci à vous amis téléspectateurs à 10h ñu jox leen seen flash d'information 11h ngeen ànd ak Sister Maria et Sati moom ak Bira ak euh, euh, kii tonton Albert ak seen ay gan donc bu ko defee ñu gën leen yaatalal li nga xamante ni moo di actualité bi quant à l'équipe matinale ñun ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah